شكري لرب كريم كان شكارا وارتجي منه في الدارين أبكارا شكري لرب كريم كان سكارا كتبت شكرا له ما خرجت به waaw li ma doon métti de am naa ci saafara ndax bëñ ci la woon waaye am na it garab yoo xamee ne docteur yi jox nan ma ko ma mi ngi nii ma téye sama loxo wax nan ma ni ni nga koy utilise loolu ba tey mi ngay man ndax damaa nekk ci weeru koor yi moo tax jëfandikoo gu ma ci waaye eh, yii ma yor nii ay garab la yoo xam ne docteur yi ñoo ma woo jox ma ko laaj ma li ma dal ak sama jàngoro ma wax ko ñu jox ma ko ba mat mi ngi nii ma téye ci sama loxo. kontaan naa ba pour kontaan tàmbalee ba fa mu ba mënut am fu ndax ñun dañ koo bëgg ci suñu xol ndax danoo gis ne nit ku leer la nitu leer la nitu yàlla la te boo ko gisee te xam dara da nga xam ne nit kii du du nitu yàlla la. nitu yàlla nag na nga koy xamee boo ñëwee ci dëkk bi gis lim def ci dëkk bi danga xam ne yàlla moo ko tànn wàcceel leen ko fii tund wii nun waa tund yëpp nag war nañoo santaat yàlla sant yonent bi Serigne Touba ndax kii wut si fi lu mu am danoo dimbale si te yàllaa ko fi wàccee waaye du lum fi wut si ndax li mu lu mën a doon mu koy wut rek am na ko fam ko war a amee ba mat ndax ci Serigne Saliou bàyyi ko dal fii ci lu ma dégg laa wax nag ku nu yar la ku ku nu la ku nu jàngal la ku nitu yàlla la yit teg ci te boo ko gisee da nga xam li ma wax di su ko laajtee ndax li mu fi def ci fa at yii rek nittu yàlla pire moo ko man koo xamee ne di su ko laajtee nit la koo xamee ne it di su ko laajtee moom boo fi taxawee rek danga xam ne kii nit yàlla la koo xamee ne fa mu jógee ci ay cër boromi cër lan fan yëpp ñu ngi fi di faju ñee ngi dem ñee ngi dikk ñu ngi faju ba fii mu ne mbooloo mi sax yëngoogut des na loolu moom moo taxoon a jóg waaye dama fanaan tey ci kër sëñ bi ngir nun waa caal danoo amante kóllëreeg sëñ bi sëñ Mouhamadou Mbacké maawul aayaat nun waa caali yi danoo amante moom kóllëre fasanteeg moom ngir loolu li ko waral mooy day jógee Touba di jaar ci suñu dëkk ci Thiali di ñëw fii ci Mbarasaan ñoo xamante ba mu jinnu ay teraanga yoo xamee ne chaque jour kori gu jot koor gu jot dañuy wàcceel foofu ay ta keesi tàndarma am nañ benn màggal boo xamee ne danoo woo ñu ñëw mu berndeel nu ah, eh, teral nu ah, am loo xam ne seq na ko noonu mu defal na ko ci suñ màggal gi muy teraanga bu rëy a rëy teraanga boobu mu rëy nag moo tax nu ñu jàpp ko jàppil goog fas danoo fas yéene ñëw fii tey ci alxames ji ci euh, këram gii ci euh, Mbarasaan ngir fàttali ko la rek googee nga xamee dañ koo seqoon nun waa daayira caay yi dajaloo nan ba waxtaan man mii ci laa bokkoon ndax dama maa woote keroog ca pénc ca dëkk ba bi fa dajee nun waa daayira bépp ñu waxtaan a ah, wut nu nit suñuy teraanga fas yéene ñëw fii ci alxames ji ci kër sëñ bi ci mbarasaan pour sargal ko tatagal ko waxtaan ak moom xamal ko ne ko yëg nañ la ni nu yëgee ndax danoo defal njukka lu baax loo xam ne yëg nañ ko xam nañ ko am nañ ci moom cofeel goo xam ne fii mu ne làmmeñ mënu koo tudd ba mu jeex tey ci fajar ak tey dong bi nu jullee fajar waxtaan na waxtaan wu rëy woo xamee ne waxtaanu diiné ak l'islam ci bokk yi ak jokki julit yi mënuma nettali nak waye xamal na non fi lu fi way sakku ci dang ko fi am ndax barab la bunu bo xamé né barab bu tan la barab bi na ku fi ñew na nga sax ci jàng alxuraan jàng khasida sikar tuddu yalla lu way man yor sa kurus yor ko di ñaan ci yalla muy góor muy jigen muy mag muy ndaw waaye nee na it fii ku fi ñëw da nga fee war a defaroo waaye waroo fee yàqoo ndaxte nee na moom ci jëmmi boppam barab la boo xamee ne ku fi ñëw tey di fi sàkku si bu tudd nit ko warut a tudd bu fi wax loo waruta wax na nga sax ci jaamu yàlla ba ba ngay delluwaat ko boo ko defee foo doon am fukk da nga fa am téeméer fii ci gi mu ne dëkk la boo xamee ne yàllaa ko ko tànnal jox ko ko ci daraje Serigne Touba. رب كريم كان شكارا وارتجي منه في الدار